combat de la soirée démb combat spécial bi ndeysaan di dox ci diggante Youssou Ndour bu Lebu gi ak nga xamante ni mooy Taxé Taxé moo ñu wan ginnaaw mbokk yi Youssou Ndour la ñu jàkkaar lool mu ngi lewaatoo ñoom ñaar mbokk yi Youssou Ndour Taxé Youssou Ndour Taxé ñu ngi lewaatoo Taxé à droite Youssou Ndour waaye écrit lépp gi ndeysaan ndeysaan jëkkal tànk càmmoñ dafa jiital tànk ndeyjooram wala tar bi doon waa Seras bu doon ndeysaan moom taxee léegi doon na mën yaa taxaw na jot taxaw ndeysaan ñoom ñaar Youssou Ndour takk Seras ndeysaan Youssou day dem waaye takkee lay dem waaye bu demee lan la koy fekk moo ma jaaxal. Youssou Ndour am na lu muy ñëwee rek. Youssou Ndour ndaxte Malick Ngom mi ngi wax ak ñoom moom arbitre bi. parce que li ma def nii Youssou Ndour mën muy xaar. Youssou Ndour ndaxte. waaye tey day bëri tànk. ndaxte moo ñu wan ginnaaw mbokk yi Youssou Ndour la ñu jàkkaarloo. laaj laaj da ngay dawaat doo jël ñaar seen loxo yi laalante. mbokk yi nee naa leen Youssou Ndour mu jël tànk càmmoñ. ndaxte gisal tànk ndeyjoor mu nekk fausse garde à garde baax a baax Baye Ndiogou foofu ca Tëngéej ndeysaan ñoo noonu ndeysaan Soundour Dakhé da ngay damante baaraam mbokk yi nee naa leen ñu may doon leen combat de la soirée combat spécial naka Lansar Youssou Ndour Dakhé ki toog ci kaw Youssou Ndour Youssou Ndour na ngeen mën a suñu déggee ñoo ko jàppante nañu jàppante nañu ñoom ñaar ndax ay Youssou Ndour waaye ci nekk jàpp nga jàpp Youssou Ndour dafa doon ba koy bot la ilaha illallah Youssou Ndour dafa leen attention Youssou Ndour mu ngi ñëw ndax léegi door takki te maa ngi la ko ñu la ko ñu la takk maa ngi bot Mbaye Gueye Faye nga yëkkati sutur Mara Mbaye Gueye Faye nga yëkkati yu sutur ndaxte tar na ko Mara Ndiaye nga yëkkati yu sutur ma ngay wër géew ba moom ndaxte ma ngay wër ndaxte ngay wër géew ba ndaxte ngay wër géew ba ndeysaan ma ngay wër daan na ba pare di wër géew bi lii yëpp tegtalu sëriñ la moom ndaxte ma ngay wër géew bi la ilaha illallah ndaxte daan na ko taxe daan na ko ma ngay wër géew bi moom taxe la ilaha illallah taxe Youssou Ndour demoon na mu koy wër nombo waaye mu tudd ànd jël na sengoor naa bu bëree dox ci diggante Youssou Ndour bu Lebu ak nga xamante ni mooy Takké Takké moo ñu wan ginnaaw mbokk yi Youssou Ndour la ñu jàkkaar lool mu ngi lewaatoo ñoom ñaar mbokk yi Youssou ngi lewaatoo Takké à droite Youssou Ndour à jiital tànk càmmoñ Jaxate jiital tànk ndeyjooram balantar bi doon waa Seras bu ko ndeysaan moom taxee léegi loolu moom yaa ngi taxaw ne jot taxaw ndeysaan ñoom ñaar Youssou Ndour takk Seras ndeysaan Youssou day dem waaye takkee tànk ndeyjoor bi mu jiite waaye bu demee la la koy fekk moom arbitre bi parce que ni ma déglu Youssou Ndour mën muy xaar Youssou Ndour taxe waaye waaye day bëri tànk taxe moo ñu war ginnaaw mbokk yi Youssou Ndour la ñu jàkkaarloo da ngay lewaat doo jël ñaar seen loxo yi laalante mbokk yi nee naa leen Youssou Ndour mu jël tànk càmmoñ taxe ji jël tànk ndeyjoor mu nekk fausse garde à garde normal mooy nii bu baax a baax bàyyi foofu jëte géej ndeysaan mbokk yi nee naa leen ñu may doon leen combat de la soirée combat spécial naka Lansar Youssou Ndour la nekk dox ci kaw Youssou Ndour Youssou Ndour jokkaas na naka door na naka la ñu ñaar ñu xeex naka door naka la ñu naka Youssou Ndour naka jàpp na képp Youssou Ndour déggee na ko jàppante na ñu ñaar naka Youssou Ndour Mor Mor Mor Mbaye Gueye Faye nga yëkkati su dul Mbaye Gueye Faye nga yëkkati su dul xatar na ko Mara Ndiaye nga yëkkati su dul ma ngay wër géew ba moom ndaxte ma ngay wër ndaxte ngay wër géew ba ndaxte ngay wër géew ba ndeysaan ma ngay wër daan na ba pare di wër géew bi yëpp tegtalu sëriñ la moom ndaxte ma ngay wër géew bi la ilaha illallah ndaxte daan na ko daan na ko ma ngay wër géew bi wër nombo waaye mu tudd ànd jël na Senghor ba ba pare ndeysaan ndeysaan